bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin bu dee laaj bi tege mbokk mi nee na góor ak jigéen a ngi nii yoo xam ne dañ doon sëy waaye yàlla dogal góor gi fase ko ñetti fase nga xam ne kon seen diggante day xaraam lu may baada zawji waaye nee na ñoom ñaar ñuy amante ay rendez-vous ñuy ay rendez di moyaat yàlla kooku moom njaalo la kon su boobaa ñuy wéetaat di njaalo nee na am nag koo xam ne moom daf koo xam nee na moom mu daal leen di mayewaat maanaam mu fas ab sëy seen diggante daal ne ndekam moom ñoom mënuñoo bàyyante waaye boo rek mu far leen mu far leen maye a ah, moom de xam naa ne dama xamut ndax bu demee ca suñ borom bu ko laajee ne ko lu tax nga maye ñaar ñii tama xaraamal ko lu muy ndax moom ñoom li ñuy def ak mooy yàlla la ak moy yàlla te it da leen a neex seen coobare léegi da nga fekk ñoo xam dañuy def ak ak ak mooy seen coobare nga ne da nga leen a dimbale ba far yow def ak mooy yàlla yow it mooy boole ñaari ñoo xam ne yàlla moo leen tàqale yàlla moom xam na bu dee yërmande xam moo ko ëppale bu dee lépp xam xekma moo ko ëppale te teewul mu ne ñaari ñii seen jeex na waaw kon daal ab jullit lépp lu muy def bu mu ko def ci ay xalaat ak ndegam nangam déedéet bala ngaa boole ñaari nit daal na fekk na diine moo la may ne ñaar ñii mën nga leen a boole loolu day faral di am ci sëy sax na gis góor goo xam day fase jabaram benn ñu kii xuloowaat ëllëg beneen mu fasse ko ba mat ñett mu fase ko ñett de kilifa yi xam ko ba noppi dem di ko defar te dañ koy xam dañuy xam ne kii fase na ko ñett kooku boo koy defar yaa ngi fekk lu yàlla xaraamal nga ñëw diko def yow kon nag waa ja xam ne moo maye ñaar ñooñi daal amul aw lay bu demee suñ borom buñ ko laajee moom amul aw lay te nag maye leen taxul mu dagan même bu leen maye wérut baaxut baaxut de <laughs> kon amul njariñ ndax même bu leen mayee tamit taxul mu baax taxul sëy ba weer kon loolu du solution ba loolu du solution ba solution ba kay moo ne kon waar leen ci yàlla waaw waar leen ci yàlla suñ borom subhanahu ba ñu bàyyi mooy yàlla googee ba keroog ñu xam ne loolu am nattu rek la waaye yàlla teg la ab nattu di la testé nga lànk fala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkaadibin yàlla ne léeg-léeg dinaa leen teg ay xam ñi dëggal ak ñi nga xam ne dañuy rek naan gëm nañ fekk ca dëgg-dëgg gëmuñ ndax bu la yàlla teree jigéen dong ne la kii ko rek nga lànk ne man su ma ko tëkku tamit damay damay moy ak mooy kon yow nanguwoo dogalub suñu borom bi mu teg bi mu wàccee sa kaw nanguwoo àtte bi yàlla kookee nag ñëw di dugal sa naan dama leen di maye yow ko dara mayilu ko nga jekk di ko def waaw ah, kooka day responsabilité bu réy la de boo xam ne xawma fu mu koy layee wallahu aalamu laaj bi tege mbokk mi di laaj téere alquran bu demee ba mënee su koo jariñoo mu gis ne ñenn ñi dañ koy dajale di ko lakk ñenn ñi di ko suul waaw bu fekkee ñoŋal ko rek la téere alquran boo xam ne kenn mënu koo jëfandikoo te buñ ko bàyyee mën nay naaw dem ci sobe yi wala ñu koy sabantal kooka nga lakk ko dara nekku ci waaye la gën nag mooy suul ga a ah, suul gi daal bu fekkee mën naa jàppandi moom moo gën mooy gas ba mu xóot nga suul incha allah wallahu aalamu laaj bi tege mbokk mi di laaj nee na moom bu duggee ci oto eh, bu toogee day wax alhamdulillah wala bala moo toog ne bismillah bu toogee ne alhamdulillah noonu nag la ko diina santaane ñu bari dañ koy fàtte saa yoo duggee oto ak ab yoog mën a dugg saa yoo waree ah, booy dugg nel bismillah boo tooge ne alhamdulillah kooku moom diirub oto bi daw wala avion bi naaw dañ lay bindal tuyaaba boo ci mën a yokk subhaanal subhaanal lasi saxara lana haada wa ma kunna lahu uh, muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun boo ko jokkee ba tey baax na waaye rek booy toog daal boo duggee ne toog ne alhamdulillah kooka doy na moom moomiy def loolu nag nee na dafa gis ñeneen ñoo xam ne wala keneen koo xam ne dafa dugg daal di jël loxoom teg ci bopp bi teg ci mbagg yi nee na moom mu daal di wax aouzu billahi mina sheytaani rajim ba nee na kooka di ko xool muy laaj ba xam ndax loolu mu wax ah li mu wax de dañoo xamut lu ko ko tax wax bu fekkee kooka lam def moo tax mu wax ko su boobaa dañaa ko waaw kooka lim def ndax xam nga lu mu doon kooka kat lim def fi xamaguñu xamu xamaguñu lu mu atte nit ak gaaw koo jugé loolu ëpp naa def ndax ku jël loxoom teg ci ab jéem tek ci mbaggam xamoo lu wax xamoo lu def xamoo ca dara waaw xamoo ca dara mën na am wax loo xam ne diina nangu na ko xëy na yow yaa ko xamut kon yow ndekam yow def nga liñ la jàngal nga gis keneen def te yow déggoo mu wax dafa jël ab loxoom teg ci jéem teg ci wàggam rek teeyal tuuti moo tax jékki-jékki rek di atti nit loolu ëpp naa def ëpp naa def kon daal bu fekkee ne kooka lam defa tax ngay wax waaw kooka dafa mel ne kon yaa ngi ñaaw njort ci moom te yow xamugoo lim def lu mu doon. xëy na boo waxtaanoo moom ah man ko damaa gis ngay def nangam nangam bun ah, la waaw lool de moom ah, boo dugg ci oto moom nga war a def nga ne ko ah loolu de daa mel ne wut nag la yonent bi jàngale woon te yonent bi lim jàngale moom la ñu war a jëfee waaw kay nga mën koo waaye gis mu def nga jekki-jekki rek atte ko loolu ëpp naa def wallahu aalamu laaj bi tege mbokk mi di laaj lu mel ne sindax ak lu mel ne xeetu unk yi ndax seen dem àll dafa nekk sobe déedéet yooye du sobe ndax ñoom dundewuñu sobe ci liñ xam waaw ci liñu ci liñu xam daal dundewuñu sobe dundewuñu sobe kon yooye nag seeni dem àll moom du sobe ta ñoo ñoom it bokkuñ ci yi nga xam ne dafa xaraam ñu jëfandikoo leen yi nga xam ne suñ borom da koo xaraamal ne yii dafa xaraam ñu jëfandikoo leen ñooñu seeni dem àll mooy sobe xëy na unk moom xam na ni ko yàlla binde ak tooke ji ñuy wax ci moom xamu fu mu toll bu fekkee loola wér na kon jëmmi tooke ja jëmmi tooke ja dana tax doy su ko jëfandikoo wallahu aalam mbokk mi nee na koo xam ne am na am xel dara jotu ko xamut tadu du laaj kooku sëñ Moussa Ka tontu na ko ne man ko xamut laajul ko xam xawma awalayam waaw kon kooka bu fekkee xamut ba noppi laajut muy julli ni muy jullee baaxut di woor na muy woore baaxut di jàpp wala muy laab na muy def baaxut no ko kooku ay jëfam dara do ca baax te bu yomal xeeb du am awlay ah ne ko yow xamoo woon te laajoo woon ah su boobaa nag tontu du am fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna al mursalin la yàlla wax ca suratul araf damay laaj borom xam-xam yi est-ce nangu woon nañoo jàngale bu fekkee waaw borom xam-xam wax dëgg yàlla disponible nañ nangu woon nañoo jàngale su ko defee nag ñeneen ñi ma laaj waa yéen kon lu leen laaj lu su boobaa nag boo amul tontu nag ah musiba la yal na ci laaj bi tege mbokk mi laaj ne moodu moodu bu wàcc fii ci réew mi soxnaam dem ca bitim réew takk fa jabari tubaab dama xamul nag jabari ji loolu la wax takk fa tubaab daal la wax jabari tubaab ji ñëw Sénégal nee na moodu moodu bi di ko nëbbu soxnaam si nekk ci kër gi naa ko daal kii xëy na sama rakk la wala sama mbindaan la daa mel ne moom loolu la laaj sax ne kii daal mbindaan mu ma mu ma jur la jabari jabari yi moom xam ne ne kii jabaram la waaye jabari moodu moodu bi day nëbbu tubaab bi ne moom am na soxna loolu mooy dund ci ay fen dund ci ay fen dund ci ay fen muy benn ñaareel bi mooy fa ñàkk worma yam ci soxnaam foofu la tàmbalee mooy ñàkk wormaal jigéen soxna sa nga takk ñu may la ko muy sa mbokkum sénégalais di sa mbokkum jullit ngir jeneen jigéen ak intérêt booy séenu ci moom tax nga ñëw naan kii sama mbindaana xam naa soxna saat nag amul ful la nag waaw soxna sa amul ful la na soxna sa day jàpp ne sama borom kër lii moo koy arrangé ndax xëy na tubaab bi dana ko may xaalis waaye déedéet gis nga dignité kenn du ko jaay dignité kenn du ko jaay waaw kooku moom kenn du ko jaay kon bul nangoo comporté woo ci kër gi di yow di nangu di wane ne am mbindaan nag loolu boo ko defee wax dëgg yàlla nag kuy toroxal sa bopp nag wax dëgg yàlla boo gisee ku la ci jàppale xam na kon da nga koy dimbali nit du toroxal boppam nit du wàcce valeur am mel ne tubaab dala gën wala boog alal adduna ji nga soxla tur ci tubaab bi nekk nit dund na ba faatu day am wërsëg ab tubaab kon nag di complexé ci ay tubaab sa mbokk sénégalais yi mbokki jigéen ñi ak niñ jàmbaara ne fii di la sonnal loolu ma defaloog amoo lu dul takk jabar ñëw di nëbbu naan ko kii sama mbindaana kooku wax dëgg yàlla doy nga waar moom moom moom moom na dayoo complexe ga ca nekk te mooy yaras li wolof wax yaras mooy complexe ba te wees na ko kon ah, daal eh, tubaab bi bu fekkee da ko koo bëgg a takk xamal ko ne ko man dama am jabar boo ñëwee ko kii sama jabar la bu la dee bëgg bëgg la ca loola bu la bëggut ñàkk laa bëgg ca loola mu jeex waaye ay toog ay làqatoog di dund ci ay tappale di dund ci ay nar ay kàcci yooyu ab julit war na koo wattandiku loolu nag ñaare mooy ñiy jaamu xaalis xam nga koo xam ne moom dafa defe ne moom faw rek Eh, alal adduna moom jaral na ko lu ne jaral na ko wàcce dara jaam jaral na ko wàcce ngoram eh, jaral na ko sax mu dem naan man góor mu dem naan moom góor jigéen la moom daal lu ne alali adduna nu mu def moom mooy koo xam ne nu mu amee baax na yàlla na ci yàlla musal nu amee baax na alal adduna jooju nga yaakaar ci tubaab bi ba tax ngay toroxal sa bopp ndax loolu di kàcc ci sa digg kër sa waa kër xam ne yow mii lii ngay wax du dëgg ñu xam ma maanaam nga am doom mu xam sa jabar ji xam sa ndey sa waay xam ko ngay toroxal sa jabar jooju alal jëng cee séenoo am nay moodu moodu yoo xam ne ñi nga am alal ju ko ëpp te ñoom toroxaluñ seen bop ñi ngi dem di liggéey di daan seen doole ci jàmm salaam waaw kon daa nekk looy am am ko ci ngor ak dignité rek te it nag yu mel noonu ñaare du yàgg lu mu yàgg-yàgg rek boo tundikut ay fen moom lu mu yàgg-yàgg rek moom danañ ko mujj découvrir waaw xanaa nga arrêté ko moo tax loolu moom lu doy waar la wallahu aalam bu dee laaj bi mi laaj lépp banque ngir tabax waaw duñ jéem a xool liñ ciy def ngir tabax ak ngir jënd kër ak ngir euh, jënd oto maanaam la nga ca war a def loola duñ ko li ñuy lijjanti rek mooy leb banque bi bu fekkee daal leb ki ngay leb banque dafa araam na loo ca mën a def nag loolu amu solo moom dama ciy def nii dama ca bëgg def nangam ak loolu amut solo la am solo daal mooy leb gi nga xam ne dañ lay lebal nangam muy bijji intérêt nga di ko jëflanteeg banque bi xaraam na ak loo ca mën a jublu nag. deesu la ko may wallahu aalamu laaj bi tege mbokk mi laaj jigéen la nee na ndax boo amee ay bori weeru koor di ko fay ndax da ko war a tegale déedéet waroo ko tegale de da koy fay ni nga mane kon kooku ñëw ne la baaxut faaw da ko war a tegale dafa xamul rek nit ñi nag da nga gis ñoo xam ne duñ xam borom am fit mooy njóobeen yi waaw day ñëw att attin ne waaw yow liggéey def araam na te kat boo ko laajoon ne ko waaw loolu ku la ko wax daanaka day nakk-nakkal loolu dafa dafa ci nit ñi ñu dëgër fit lool day jekk-jekk rek wax xam nga fekk kuy fay ay bori kooram nga ne ko nga ne ko nii baaxut te tegoo ko fenn wax dëgg yàlla yow da nga koo njort rek xëy na wala da nga koo yaakaar da nga ko war man ka damaa yaakaaroon faaw dañ ko a tegale nañ dem laaji ko waaye jekk-jekk fekk nit def nga ne ko li nga def baaxut te amu tegoo ko fenn loolu aw fit la kon boru weeru koor nu la neex nu jàppandee ci yow nga koy fayee neexee tegale ko bu la neexee woor benn fan baay ba nangam bu la neexee nga ne damay xaar bis nangami nu mu jàppandee ci yow rek l'essentiel na li am solo mooy na nga ko fay laaj bi tege mbokk mi laaj ne booy julli boo sujjootee ba toog ndax foofu am na luñ fay wax amul dara luñ fa saxal loo xam dañ naan faaw lii nga fay wax waaye boo faxee lu mel ne rab ah, lu mel ne rabbi xfir lii baax na rabbi xfir lii boo ko faxee baax na ah, allahuma xfir lii warhamni warsuqni wasturni wajburni am na ñu fay wax loolu waaye amul dara nag luñ fa yaxal loo xam dañ ñaan faaw lii nga fay wax la nangam boo si gontoog waxoo dara sujjootaat dara néew ci dara nekku ci wallahu aalam mbokk laaju mbokk mi mu ne ku dem ji julli ji ajjuma fekk imaam toog di taaya nga xam ne julli gi moom amoo ko ah, boo ñëwee looy yéene ndax man ngaa bokk julli xam nga ne moom ajuma moom du baax moom tisbaar ngay julli li ngay looy yéene kon boo ñëwee da ngay yéene tisbaar waaye bàyyil xel nag ne yéene tis yéene ajjuma ak tisbaar mën nañoo weccante waaw yéene tisbaar ak mën nañoo weccante moo tax ki duggoon ci julli gi sax ngir yéene ajuma teewut bu nekk daa ñëw fekk rek eh, ima imaam taxaw mu daal di ñëw kàbbar defe ne imaam moom mi ngi ci ajuma ji bam kàbbare ànd ak imaam ndekete imaam daa rukkoo ba siggi xam nga amul ràkka ba te bi muy yéene ajjuma la yéene loolu do ca dara do tee do imaam bu sëlmalee rek eh, mu mën a jóg julli tisbaar ndax dañoo mën a weccante waaw ajuma ci yéene gi mu yéene ajuma mën na dugalaal ndax jëmmi ajuma ci boppam mook tisbaar dañoo wuutante kon bu fekkee ne da ñëw nga xam ne julli gi jeex na da ngay yéene rek kàbbar daal di toog boo toogee da mën ngaa tàmbali di di taaya am na ñu ne jëru ko mën ngaa tàmbali taaya bu imaam sëlmalee nga fas yéene julli tisbaar daal di indi sa ñeent raaka comme ni ñuy jullee tisbaar rek comme ni ñuy comme ni ñuy jullee tisbaar foofu nag daanaka looy royete ci imaam mu amutu fa ndax da ngay daal di toog xanaa diggante boobi boobi ngay toog waaye foofu moom lu ñu royete waaye ndegam julli ga jeexut moom man nga langa war a def lépp daal boo yéene woon ajjuma ñëw yéene roy ci imaam it ndax yéene roy ci moom du lu ñuy wax saa yoo xamee ne da toppandoo imaam rek loolu da ngaa yéene ci moom yéene roy ci imaam nekkut lu ñuy wax mooy da ngaa fekk imaam ci boppam mu am lu muy def mu taxaw di julli yow nga ñëw fas yéene topp ci ginnaaw kon kay roy yéene yéene roy ci moom loolu dong la du lu ñuy wax waaw du lu ñuy wax mooy fas yéene ngaa ànd ak kii rek mu ngi noonu kon daal boo ñëwee yéeneel tisbaar wala ajjuma loo ci yéene baax na nga ànd ak imam ndegam da ngay ànd ak imam ndegam daa toog nga toog nga ne imam moo tënk munoo jog di fay te kiiwu la kon faawu kon yéene ngaa roy ci moom bu sëlmalee nga jóg julli tisbaar yàqondiku ci dara mbo boo yéene woon ajjuma jóg di fay tisbaar benn la wér na boo yéene woon tisbaar imam sëlmal nga jóg di mu julli tisbaar ja ba tey wér na ba tey ba tey wér ba na wallahu mbokk mi nee na koo xam ne dañ koo dénkoon alali mbooloo ni ab daayira wala ab daayira sax moom noonu loolu la laaj nee na mu ci daan jëfandikoo nag ci loo xam ne moom du yoon nee na mu dem ba mu yàgg loola mu rëcc ko bëgg koo fay te fekk daayira ba moom tas na nu muy def xanaa saraxe saay yoo lekkee alali jàmbur ci lu dul noona nga dem ba rëcc bëgg koo tuub ah, muy raddul mawaalimi ah kooku moom jàngaloon nañ la ko jël ci alal ci loo xam na leen toll na nii wala bok ëpp na ko sax nga jël loola saraxe ko yéene ko seeni borom rek yéene ko seeni borom loolu nag du waaye comme réccu am na ci rek alhamdulilah mbokk mi nee na ndax sañ ngaa jaay am xar xàjjale ko ak doomam maanaam daal xar mi dafa am doom nga jaay xar mu jigéen ma wala boog nga jaay doom ja wacci fa wàcci fa nday ja loola room xam-xam dañ cee am ak wuute ndax yonante bi moom dafa tere woon bu dee doomu aadama booy jàng lu mel ne jaam ci borom risaala euh, ak téere fiq yëpp dañuy tere ab jaam bu jigéen ànd dooma nga de ko xàjjaleeg doom ja ci jamono joo xam ne doom ja da koy soxla daa ñu ñu ca yéegal nag bàyyi ma da même bu dee bàyyi ma ndax loolu ak mbugal la loolu mbugal kon dëgërut waaye am na ñu ne axa ah, kay dagat na bu fekkee bàyyi moomu ah, tey loolu wax wax ju dëgër la nag ndax xam nga bàyyi may xam naa nag mu am doom fa saasa rek nga daal di koy jëlaat ko daal di xàjjale mel ne ne xaw naa metti maintenant la tane daal mooy nga bàyyi ba doom ja topp ca ginnaaw dox ak yu mel noonu nga doog koy kii bari na ñoo xam dañuy dem jënd am mbote bëgg ko yar wala nangam te loolu nag day mel ne xëy na yaa ja am na yëg-yëg bu mu ci am xam naa yëg-yëgu biir la moo tax yenn borom xam-xam yi yéegal ko ci ab jaam ci boroom xel ci doomu aadama ci boppam jamono yi ñuy jaay ay gorog jamono yi ñuy xaajale jaam ab jaam day xaraam jaam bu jigéen moo am doom nga di ko xaajaleeg doom ci loolu dafa dem ba dëgër waaw loolu loolu du dagan loolu nag daa am ñu jàpp ne mbugal ga ci nekk ak xàjjale nday ak nim nday ak nim ak doom nim dëgëre loola même bayi may dañuy sentir loola tax ñu yéegal ko foofu nekkon kon même bayi may du dagan am ñu ne axakay ah, bu dee bayi ma moom dana dagan waxalaa ku leen lëggën rek mooy bañ koo def ndax mel na lu xaw a metti wallahu taala alamu sawaab